gannaaw bu ñu amalee ab ndaje ni ki weerum juillet ci atum 2021 bi ñu génn ñi nga xamante ni nii ñoom la seen xamxam xam ci jëmale ngir ñu xool koppar gi nar a dugg ci liggéeyub complexe Cheikh Ahmadul Xadim bi ñuy amal fili ci diwaanu Touba loolee nag waral ni ki gaaw gi yemook fukki fan ak ñett ñu dajewaat rek ngir xool fa ñu toll ci liggéey bi ci teewaayu kii di Serigne Ahmadou Badawi Mbàkke tey jii ñu ngi fi daje woon euh, ci njiital Serigne Ahmadou Badawi ak ci invitation Serigne Mor Faye euh, amal fi liggéey boo xam ne travail de restitution mu jëm ci liggéey boo xam ne santoon nañu ko mu jëm ci defar euh, projet de budget démarrage euh, complexe Cheikh Ahmadoul Khadim liggéey bi nag biñ koy door a tàmbali ñëwoon nañ fi daje fi ak sëñ Ahmed Badawi mi nga xam ne moom liggéey bi yëpp bañ ko tàmbalee léegi ñu ak moom ñoo ko ànd guddeeg bëccëg suba ngoon ñu ñëwoon fi daje daje fii tamit comme sama naataango bi ni mu ko waxee sànq ci dubaab ngir am li nga xam ne moo mooy mooy doon euh, laltaayu liggéey boobu mu jëm ci wàllu information. muy ab prox ndollu ngir ñi nga xamante ni nii seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu wi ñu xalaat rek fan la ñu mën a jëlee koppar ak naka la ñuy dugalee koppar gi itam waaye itam naka la ñu koy génnee koppar googee nag ñu xalaat ci leneen lu wuteeg li gouvernement bi di joxe. waaye daal buget bi moom ñu xam ne mooy ni ko ñëpp xamee rek euh, ay xayma yu jëm ci wàllu wàllu koom ak koom moom bu ñu ko dajalee ba noppi tamit fu mu lu muy fu muy war a dem ci wàllu dépense maanaam fi ñu koy jëlee ak fi muy dugg ci lii doxal liggéey bi liggéey complexe bi. xam naa foofu tamit ci wàllu communication rek damay damay damay damay profito leeral ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ni maanaam ñu baree baree bari njuumte bi ñuy xaw a def tuuti te te te xam naa ne loolu noonu noonu la maanaam du université dong maanaam complexe la. am na tamit benn mémo boo xam ne defaale nañ ko muy wax tuuti ci ni ñuy ni ñuy ni ñuy doxale ci ci wàllu fonctionnement fonctionnement surtout finance ak administration boobu tamit am na liggéey bu am solo bu ji mbokk taalibe yi def xam naa boobu tamit dana jar euh, ñu ñu ñu finaliser waale ko nga xam ne document bu ñu koy buñ koy joxee ñaar ñëw ñëpp ñooy ñooy ànd ñu mën koo jël suñu sukkandiku ci ñi nga xamante ne ni dénk nañ leen bi liggéey daal dinañ fësal ni loolee daal faaw ñu wane ci xarañteef gannaaw ba nga xamee ni liggéey bii daal dañ ko méngale ak yi ñuy gis ci àdduna bi loolee nag waral ñoom ñi le daal di fësal ni daañu def seen kéem tolluwaay kàttan ngir rek li di mel yemb ba liggéey bi ñu jébbalee ko ca anam ya ko sëriñ bi bëggee